bokkandoo liggéey li ñuy liggéey ñëpp mën a def. ah diir bi ñu tàmbalee gàmmu gi itam. sax di wax ne lu fi El Hadj Mourou doon def loolu la ñuy def. dañuy sax di wax ne saa yu réunion li fi El Hadj Mourou daan def daal moom la ñuy def. du ñu ko yokkul. kenn du ko jéem a wàññi. loolu dañuy jéem a wut yoon wu bees dañuy sonal. loolu dañuy jéem a wutal yoon bu bees te loolu def ñuy sonal li mu daan def daal la ñuy def duñ ko yokkul daal duñ ko waay nee na loolu si la rakkam yu baax yi nekk di fi ñëw léegi soxna si ab marocain la démb dafee ñëw xool nag yi xool koñ bi ni mu yëngatoo. nee na xam naa ni daal daanaka Maroc ñun nii la ñuy dundee. mi ne soxna si ne ko est-ce que suba sëñ Ousseynou doo ma may ndigal ma mën a fekkee lii ngeen di defaat. looloo waral tey jii ngeen gis jigéen mu teew ci sunu biir. nee na mi ne ko na nga ñëw nga xool. nga doo delloo Maroc te fii sa xam ngeen ne daawu fi teew teew fii nee na sëñ bi moo ko ko may mu teew fi nee na comme ñu ngi sant bu baax di julliwaat ci Seydina Muhammad nee na képp ku fi teew incha allah njaboot boo xamee ni dem nga yàlla def sa njaboot taxaw taxawaay gi xam nañ ne bu baax a baax a baax sa njaboot mi ngi jokk woo léegi noonu nga xamee ni dañoo càpp seen baay yi daan seen maam yi daan fi def seen maamaa yi daan fi bu ko seytaane yàq amiin ku mel ni Pape Ibrahima mi ba muy tàmbali ñaari nag la dundul ren nag mi ne ko ah yu toll nii nee na ñu ne ko daal damaa bëgg daal ren jëndal benn nag rek nee na ñu ne ko defal benn rek te yàlla saxal ko amit nee na yow tamit ñu ngi lay ñaanal Pape Ibrahima yàlla yàlla defal seen yëg si barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Alaaji Mbay Jaxate tamit ndeysaan mi ngi yegg si bokk na si yëf yi si kilifa Somone yi la tamit moom taal la ànd ak Mbaye Cissé Thiat alaaji Mbaye bisimilah. imam As nee na kontaan nañ bu baax a baax a baax. nee na ñoo ngi gërëm moom organisation bu mu mas a def. nee na mbooleem organisation bi mu mas a def ci bàyyam ba fii. su dul góor ga. su dul góor ga. li ma yëg ci alaaji mu boobaab léegi. moom masul moom masul dafa alaaji mu dafa alaaji mu si yëf yi rek. di ko jàppale. di ko jàppale. man mii sax am na yoo xam ne wax dëgg yàlla ñëwuma ci dama. nee na moom mii sax am na yoo xam ne day sonn ba du mën a yegg si waaye moom rakk ji rek mi ngi tax taxaw. waaye moom mi ngi taxaw ci magam rek. nee na moom mi ngi taxaw si gannaaw magam rek di jëf jëf. ñu ngi koy lay ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal sa may ko wér. nee na yàlla may la wér wax leen amiin da ngeen siy yàlla may ko taxaw bu baax a baax. na yàlla may a baax a baax a baax. yokk pas-pasam ak yokk kartanam. yokk pas-pasam yokk kartanam. ba lii muy def yàlla dimbali ko ci mu continuer ko di ko def. ba lii muy def yàlla dimbali ko mu mën koo continuer di ko liggéeyal ay magam. te mu lool nag. te lii yàlla yàgg lool fu ne am yàlla na nga ko yàlla defal. yàlla na ko ko yàlla defal. li mu ci wax rek mooy noonu. nee na li mu ci wax rek mooy noonu. لكن كنك في يكتي جند نك تكفي لكن كنك في جند سنك تكفي في جدائي يين ونا أرغنيزي أرغنيزي ليون انت نينا يين ونا أرغنيزي سيدنا محمد وان يكتي سنك دفتو تيب pàkk wala barab boo xam ne dafa am barke. nee na nga yëkkati sa nag def ko foo xamee ni barab boo xamee ni dafa am barke. te yàggee na noonu. te yàggee na noonu pour am barke. nga dimbali leen. nga dimbali leen. ci gan yi ci gan ya. loolu tuyaaba bu rëy yàlla dina ko jox. nee na loolu tiyaaba la boo xamee ne mu rëy yàlla dina ko jox jaamam. ñu ngi gërëm ñëpp ñu fi teew tam. sëriñ bi nee na ngi gërëm képp ku fi teew rek. président fédération bi. président fédération sunu baay Papa Alaaji Alaaji Mbay Jaxate ñëw na jóge Soma. Alaaji Mbay Jaxate jóge na Soma ñëw na mi nii teew moom tamit. Mbay Siise Saaj. ak bu ñuy wax Mbay Siise Saaj moom tamit ñëw na ànd ak ñëw. ak Pape Ndaw ak dinañ ko lim. ak Papa Ndaw tamit dinañ ko limaale. dinañ ko limaale tam. ak dinañ ko limaale tam. fa tabaarakallaahu. fa kontaan nañ bu baax. sëriñ bi daal nee na kontaan nañ bu baax. ñu joxe ñëpp yàlla buñ ko ñàkk. nee na képp ku joxe. yàlla boo ko ñàkkati ku yéenee joxe. te amoo yàlla boo ko ñàkkati foo xamee ne am nga te daan joxe tamit te jiitu bar sax yàlla nga dajeeg rasulilah. te ku amit joxe yal na yàlla barkeel li nga joxe. nee na ku amit joxe yal na yàlla barkeel li nga joxe. te yàlla ful ko. nee na loolu tamit yal na ko yàlla fulal boppam. amiin bi jaay rasulullah. bi jaay Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam. ndax dafa bokk ci. yëkkati ko martaba ak ak maqaama. nee na lii nga jël sa wërsëg joxe ko si nabi day yëkkati sa maqaama. day yëkkati sa martaba. mooy leel ñam ca bokk. leel nee tamit loolu dafa bokk si leel ñam moom tamit ku ko yàlla day yëkkati sa maqaama. mooy ifsa salaam. nee na xam ak koo xamul. di nuyu koo koo xam ak koo nu xamul yëpp nga nuyu ko. wa itaamu taam. nee ak joxe ñam. wa wa wa layyinul kalaam. nee na lay wax wax du nooy yow bokkoo ci nit ñi naqari deret tàng diine di wax wax yu metti yow daal da wax wax yu nooy ak wax yu rafet. li ci ginnaaw nee na wanna sum guddi yàlla def la nelawoo nga daal di jóg di ne di julli di julli loolu day yëkkati sa maqaama day yëkkati sa daraja te faj tey aaj comme nag yaakaar na ne ñi fi indi lii. ak yéene woon a indi te indi woo. ak yéene woon a indi te indi wuñu. ñoom ñëpp. nee na ñoom ñëpp. yàlla dina leen bindal loolu. nee na yàlla dina leen bindal teraanga jooju amin wax leen amin. yàlla ko yàlla def. yàlla ko yàlla def. sëñ Ousseynou wax na li muy wax ba pare. sëñ Ousseynou nee na sunu mag Pape da xamee ni moom Baye Ahmed ñoo ko daan organisé ñoo wax na ba pare imam Asek dafay ñaan. wa wa yaa marabiya na na nu raxab bi fi hada al makan incha allah shukran jazilan ma xadar voilà. alaaji moom daa wax ne. nee na leen ñaan nangu leen ñaan nangu leen ñaan de yombul de surtout Alaaji Ahmad Boro de ñaanal yombul de nangu leen ñaan wa alhaqna bihim zurriyatan alquran ko wax surtout nit ku baax di la di la di la ñaanal yombul ñun ñëpp nangu ñaan امين امين رب هذا امين الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد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 يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين آمين آمين, آمين. آمين. آمين.